Koïta et je représente la FBM euh, merci de m'avoir accueilli ici aujourd'hui. Je suis très très émue. Et euh, I can't wait to see you. je sais que mon anglais est meilleur que mon français, mais euh, je suis très très émue. Et je vous souhaite très très bonne réussite. Et on accompagnera ma Medina School aujourd'hui, demain, après-demain, pour toujours. Nous sommes en 9e année. Donc, euh, on avait dimbalé le temps de école avec Jérôme. Comme nous l'avons dit, nous sommes en Medina et nous sommes donc bi leen après ñu aussi euh, jox ay bourse lu ci euh, yi nga 65000 francs yi nga xamanteni ça lui a permis bu lycée secondaire fay ci inscription fay ci fourniture donc lolu Benen patch la ci def donc fourniture aussi parrainage euh, aussi aussi voilà concours de poésie ak mathématiques, bi moy permettre école Médina ñu mëna a jogante ku nekk natt sa bopp par rapport ak beneen école nga xamante ñun euh, inspection académique de Dakar Plateau lañ koy dénk donc ci lañ ci lañ doon jëngu daaw ba ren ji comme ñu xamé rek chaque année bu ñu ñëwé dañuy yok donc daaw ñu ngi woon ci 26 écoles ren ji ñu ngi ci 30. est-ce que mën jox chiffre bi. ah maa ko bëgg a chiffre nga nag. vraiment. <laughs> voilà waaw donc je pense que suñu fourniture euh bo xolé on va dire xalé yi ñuy parrainer. Euh, dina romb dina romb cinq millions dem parce que bo jëlee 60 enfants ku ci ndeng nga jox ko 65000 65000 francs donc ça va ça va vite donc lolu par rapport à parrainage bi la après yëkkati nañ ben 2000 euros yi nga xamante dañ ko duggal ci école yi parce que bu ñu dimbalee xale après dañuy dem laaj directeur yi lan ngeen soxla ñi né photocopieuse ñi né robinet ñi né lii ñi né li donc dugalaat nañ benn 2000 euros ci ci ci école muy à peu près 1 300 000. fourniture yi euh, on va dire que ça tourne entre 4 et 6 millions aussi. Donc, ce qui est le cas, c'est le 15 millions de dépenses. Mais pour voir que c'est gens ne mettent pas, parce que nous avons ne pas 15 millions de dollars, Nous avons mettent pas de pour eux. Mais si on regarde 5 000 enfants, c'est ce qui est une motivation pour nous, chaque année. Donc, comme nous le euh, à chaque fois, les zones qui sont en train Sénégal, par exemple, euh, Dao, Dao, nous avons eu Bignona, Kaolak.

Nous fait des concours de poésie avec mathématiques. Il y a une aussi yenn facettes yu ñuy indaale ci pour euh, euh, pour pour mën nga donc aussi c'est la première fois que nous signé un contrat de partenariat avec ay stagiaires confirmés parce que nous xam une école BM euh, bi nekk Sacré-Cœur.

Euh, jamono je pense que ci partenaires am yep ñom jël suñu temps comprendre jamono Londres avant may si la mi téléphone pendant une heure de temps ma jël sama temps expliqué ko lu ñu commencé donc ça veut dire que ñom affaire bi na donc comme ñu ko gissé ñu ngi won ci gala même année yi yi sponsorisé année FBN amna ci 5 xalé yi nga xamanteni mo leni fayal sen inscription yi ñu war a parents ci mo moo aussi jox fourniture yi donc nekkuñu ci japp ci financièrement kese mais dañu bëgg aussi xam li xew ci biir ba taxna aussi ñuy dimbali xalé parce que xalé yo ñuy paré né ñun dañuy jël seen bulletin premier second semestre di leen ko yónneewaat ñoom ñuy xam ni que ah finalement sama xaalis sànniwu ki mu ko jox donte dooleem bëriwul waye ku mën jàng la donc loolu aussi benen satisfaction bi ci donc di leen gërëm di leen wax merci et puis di ñaan yàlla aussi collaboration bi gën a yàgg li fa engagement yëpp respecté nañ ko <clears throat> et je pense que euh, ñom gis nañ ni que ñun ni ñuy liggéey euh, c'est dans la rigueur ak discipline donc je pense que nous jëlé engagement jour nous un sax ñu ñëw di leen ko ñëw ñoo ñëw ñu aussi ñu indi mu ñëw donc euh, témoignage ko parce que ba ñëw depuis 2019 chaque année fay sama je pense que voilà ça ça ça ça a fait son effet et puis voilà nit 10 ans aussi ñun parce que aussi nga woote ñu wuy le yombul surtout on avait des tables euh, des entrées à 50 000 surtout des tables partenaires à 500 000 mille nga entreprise bu nekk ñëw taxaw jappalé la yu melni FBN ils ont acheté deux tables ce jour-là donc lolu moy wane rek ni que ñun li ñuy def déjà nit ñi gis nañ ko mais aussi li ñuy def nit ñi gëm nañ ko parce que buñ gëmul won duñ ci indi seen voilà donc dix ans et dal dañ ko organisé won pour outil si parce que xolé euh, chaque année suñu suñu majeure partie xaalis bu ñuy jaay pour fourniture yi

sentu yëpp bu mooy première fois boo xamna amuñu doomu jigéen français teewul luñu bëggoon jënd yëpp jënd nañ di ñaanal Dak Médina aussi voilà yàlla na fi yàgg Malick voilà Dak medina saa ñu leen woowee moo xam activité bu ñu mënti doon euh, amna ño xamanteni xamante ni boo leen woowee dañ la naan lan moo tax nga yex ma wax par exemple malik yi euh, démb la ko ko yëgal donc euh, normalement mënon na ko ko gën teel wax comme ça mu gën teel mais teewul xamna ni bu deful dara dina ñëw jàpp ci donc loolu day wane aussi ni que yéen voilà seen yéen a liggéey ci donte yëkkati wu leen kaye jox waaye le fait ngeen di fësal ñun li ñuy def mooy wane ni que yéen indi participation bu am solo donc di leen ñaanal yàlla yàlla moo xam ne di leen ñaanal yàlla voilà Dak Médina xëy na nekk télé incha allah yàlla baax